proposé nañ leen téeméer ak ñaar fukk ak juróom lu ñu ñaan rek moo di ñu daal di ci sukkandiku bañ a tënku ci téeméer ak ñaar fukk yi téeméer ak ñaar fukk yi nag buñ ko fi jëmmalee laaj bi moo di diir bi ba kañ lay nekk loolee day di sunu loos itam du doon luy woy waa Sénégal dafa neex rek bu neexul woon li ñu wax fi benn étranger ñi moo ko wax France loolu ay caaxaan la quand même waaye ñoom kenn du leen topp ci li ñuy wax parce que problème bu ñu am ñoo ko teg ñoom bi ñu ñëw agréé leen lépp jox leen tool jox leen kaan jox leen courant jox leen lépp ñu ñëw ba heure bi ñoom waruñu woon sax di wax loolu ñoom waruñoo woon a wax lu dul lépp li nga xam ne gouvernement bi def na ko comme prix bu nekkee ay patron ñu wax ko amuñu sax droit taxaw fii di wax loolu